2003 2020 fukki at ak juróom-ñaar 2STV yi doon première chaîne de télévision privée bu Sénégal nekk ci xoolu askan wi télé bi askan wi kenn ku ci nekk gis sa bopp ba ci dëkk bu sell bi di Touba liggéey bu 2STV jot na ko fi liggéey ñi fi yewoo rafetlu ko rawatina jamonoy màggalug Touba. 2S euh, moom liñ ci mën a wax mooy liggéey bu rafet boo xam ne mi ngi koy def ndax 17 euh, ans yeeg léegi vraiment bu ñu xoolee. maanaam lu jëm ci wàllu information lépp lu ñuy soxal rek dañuy gis ne chaque jour rek euh, télé bi di 2STV daf ciy nekk. ba tax na tele la boo xam ne bokk na ci télé yi nga xam ni moom la ñu gën a taamu ngir mën a xam li nga xam ne rek moom moo xew ci Sénégal. Euh, rawatina ci àdduna wërngal këpp ndax gis nañ taxawaay bi te aussi fi ma leen njëkkee naw itam da ngay gis euh, ñoom bu dee nag lu jëm ci wàllu direct surtout moom dama dama leen cee naw trop ndax booy xool jamono fii ñu dëkkee fu mel ni euh, Touba jamonoy màggal Touba da ngay gis ni ñu fiy doxale seen direct yi ni muy demee da gis mboolem xabru yoo xam ne ñu ngi fii nekk ci biir jumaa ji ak fépp foo xam ne rek euh, nit ña dañ fay soxla bëgg a xam la fa xew da gis ñoom dañ ciy liggéey liggéey bu rafet di ci liggéey liggéey bu am solo loolu daal laa mën a wax ci 2STV ko xamee daal mooy liggéey bu rafet rek boo xam ne dina ko def ak sopp goo xam ne dañ ko sopp télévision di saan ay yeneen yeneen yeneen émission ay tunkara yëpp yu neex di saan ay yu bëri daal ñi saan ñun bañu saan ay xale yi gis ngeen ci ah, fan yi ajaa ngi am gis nañ ci bopp kontaan nañ ci trop ay am na ay question yoo jàngat xamala la. waaw di jàng ñun xale yi di xam nañu suñu bopp daal. fukki at ak juróom-ñaar 2STV ak askan wi ba ca bitim réew fenn fu ci ne ñu di ko bàyyi xel 2STV ci dëkk bu sell bi di Touba ñenn ñu bëri ne la ñuy xaar mooy bés ñu indi leen fii ab chaîne bu bokk ci 2STV te léppam mu jagleel ko Touba ak li ci aju.